dafa mel na jamono soj la waaw ah. ñaare borom sedd yi dañuy am soj mooy sunu feebar nun ñëpp tabarkal waaye itam li ma jote dégg daa ni kii tabarkal la yal na ko yàlla barkeel yal na ko yàlla barkeel ñu dégg ko te it man ko jëfandikoo tabarkal la mu mel ni itam dafa am benn kilifa iliman man njaay ca ñooro xaw ma min ngeen ko walla déet waaw sëriñ Babacar Si ni ma demal seeti ko Tangga anda Allah Yusman kan bukalah Banyu deme Ñoom ñaar Ñu diberi. di bëri padha nyentik mu indil naa sering bawa Sëriñ Babacar moo indi sa doomu bopp mu seesi la yaboo ndaw yi takku te taxaw ndaxitam itam jamono dafa am borom te ndaw yi ñooy borom mag ji ñooy seetaan ñooy ñaan ñooy gàgganti waaye ndaw yee ko moom nag te bu ñu ko xamewul noonu du baax mu ni ma xam-xam de ñaar la mu ni ma xam-xam buy jur jumtuwaay ak xam-xam buy jur jikko mu ni ma boo tànnee benn bi bàyyi benn bi àdduna tukki xam-xam biy jur jumtuwaay boo ko tànnee bàyyi xam-xam biy jur jikko àdduna tukki ndax jikko mooy sangu jumtuwaay sa maam qaadi Moor Anta Sali moo ko waxoon sa maam tafsir ma ba mu mel ni ko nag jaaxle jamono ci xale yi la ëpp su amee boroomam du gaaw jaxle wante ndaw bu jamonoom jaxasoo mu jaxle te lan moo fi indi lu dul jaaxle dindi jaaxle ga loolu rekk nu fi indi du leneen ndekon du nu tàmbalee ci biiru ndey ba nekk liir ba nekk perantal ba xëy nekk màggat yàlla du ko soxla pot soo gisee mu soxla mu doxe noonu kenn ku nekk mu xam sa yitte ak sa jom moo tax mu def ko te yitteeg jom nag lu am solo la bu kon ndaw amee rekk dana mën a xam nu muy def mu mel ni kon nag dafa am benn tubaab bu ñoo wax André wax na ni xarnu bii nuy dugg nee na suñ ko delloowul ci sunu borom ne na àdduna tukki ci sunu kaw ndax crise yi bare na jaaxle yi bare na te kenn rekk ko mën a faj muy yàlla bu dul yàlla kenn mënu ko faj buñ ko ko delloo nag mu faj ko mu mel ni itam àdduna xam lan la farata la ndax bi fi yonent bi jógee sidna Abu Bakar jël ba ñu am ay jamono dafa am ñu ñëw di ko tawat mbalit mu bare bu ñu dajale ci gannaaw dëkk bi te comme moom moo fi wuutu yonent bi na wax nu ñuy def mbalit ma mu na ko ñépp topp ñépp topp ko ba ca gannaaw dëkk ba ñu ne ko yii yépp ay sën la mu ne aa ah, àdduna bi ngeen di xëccoo day mu ngoog lépp sën la lu ci bees bees waaye lu ci màggat it wax la ni xëccoo sax dafa am fu mu yem bu ëppee rekk nit di rab te nit dafa tedd waaw nit dafa tedd dañoo am suñu benn doomu ndey ñu di ko wax Boubacar Obey Diop rahmatullahi mu am benn journal bu ñoo wax l'Ouest africain mu dem seeti buur bi nekk ci Maroc di ko laaj lu mu xam ci mbiri àdduna mu di ko tontu mu di ko laaj mu di ko tontu mu di ko laaj mu di ko tontu ba ñu agsi ci senegaal mu ni ko loo xam ci suñu mag ñu baax ñu ñu fa suul mu ni kon lama ma ca xam de mooy seen cir ma nga jóge ca seen borom am nañu nag ay wëllëre ca Mauritanie am nañu itam ay wëllëre fii ci Maroc wante seen may nag seen borom a leen ko jox te loolu fierté la ci ñun ndax nègre lañu te nègre dafa bari ñu koy féetale gannaaw bu nu xamee ni yàlla moom féete liwunu gannaaw rek boobu baax na mu dellu ci li Cheikh Al Hadj Malick daan wax ni Seyid Cheikh Ahmed Tijani maak moom dañu bokk atelier waaye bu dara desul nag lu dul roy duma ko roy maamam laay roy lu ma da xammel maamam sax na am foo yem ak moom maamam laa wax na am foo yem ak moom ndax keroog bu mu jullee ñaari rakam yow ya, mom yonent ya, bi ñaan la mu ñaan war faswa faswa dox ñaari tànk tërëf yonent ya, bi daan magu ndey jooram xotteeku julli jot mu ni mënul taxaw nañ ko may mu julli ñu may ko mu toog julli ba mu jeexalee julli ga mu gestu ni leen da ngeen defe ni duma nit nit la duma yàlla ne kon duma ñaan ñaan gu réy gi ci seen kanam ba noppi fas yi di ma daaneel jënd ba day ni mu muy daaneel pour wax ni yëf yi dafa am borom te borom dafa tëxat yàlla ku tëxat Cheikh Al Hadj Malick def ni sopp naa léppam waaye sañ-sañam laa gën a sopp ndax li mu sañ moom rek ko sañ waaw sañ-sañam am na gan yu fi ñëwoon ci van yii seen soxla moo doon li Maodo daan wax ci wolof ñu traduire ko bind ko ndax dañu ni dañu digg ni moo gën a diis li mu bind ci arab ñuy laaj nag sañ-sañ ci wolof ndax mooy odaas ci tubaab ma ni leen déedéet yàlla ku audacieux la jekkul man itam bokk na ci ñu ni ma kon nuñ koy fiire ma ni leen légitimité waaye bu leen def mukk audace gis nga dafa mel na benn jigéen ba ñépp daje ni ñetti médaille yàlla jox na ko jigéen ñi nekk ci xeetu Muhammad jox na Fatima jox na Aïcha mu des bu ñetteel ñu jox ko Asma bintu Abi ndax ba mu den ndaw moo daan këmbkaay ñam yamu leen daan dabe te loolu ndaw lu jigéen yenn ko boppam fu jihaat ji toll mu toll fa ñu wàññee ko may ko az-Zubayr ibn doomu bàjjanu yonent muy jëkkëram ba ñu am ay doom ba doom ya mag wax bu tuuti dox seen diggante Zubayr ibn al-Awwam wuti ko pour dóor ko te Asmaa nag du daw ndax ba mu feree la tàmbali xare waaw xam na ni Zubayr gaynde la moom jigéen la wante du daw Zubayru di ko dóor mu yëkkati loxoom dóor ba dal ko loxoom damm doom bu góor bi Muhammad dal di jóg dox seen diggante mu ni ko randul walla muy pase mu ni ko duma randu nga rey ko mu ni ko kon nag paseem la keroog cin tàkkul mooy bés bi gën a yërëmtalu ci lislaam sidna Umar topp kër mag ñi kenn ku ne mu ni la delloo ko ci yàlla te bu ko kenn commenté am na loo xam ni ku ko commenté des bi ba tey pour war na ni yàlla sañ-sañam mi ngi ci fekk ngay nekk nit boo dee yonent it mu won nit ñi ni leen yonent la wante nit la لو هم صلوا امنا ньо خامني بول لين جوخي نيان صاح بور بن سخلا ني ني نيان كوتو جوتو ني سخلا با دا غاي دال دي كيس ني كوماسي دي بغ وني ني يالا خينا ليغي dafa jëm ci mag walla xëy na man-man bee demeetul noonu te fekk na yëpp cooberam la waaw mu mel ni ko nag àdduna soo ci nekkee li la ci tax a nekk danga koy xam ci université ba woon ca Bagdad dafa am ñaari professeur yoo xam ne ay kal lañu di kalante ba kenn ki ni ko ah àdduna daal yàq na moroom mi ni ko ba mu yàqoo du tey mu ko kagn la yàqu won mu ko ba malaaka yi waxe yàlla biko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak yàlla ni leen aalamu ma laa taalamuun waaw yàlla dafa ni bind naa lépp ba mu jeex si ndax ak melentaan ak fel ak teeñ ak ñey ak palaat bi muy séddee rab yi bu séddee ñey sédd fen bu séddee ñay sédd fel mu ni kon nag bind naa ñépp waaye dafa am lu may bëgg a bind ku may bëgg bind ku tudd nit malaka yi ni ko bu ci dugg mukk ndax xam na nu façonam ku bare ay la boo bëggee mu doxalal la sa këw këw këw këw mooy planète sa këw këw bi ñuy wax suuf noo ko dàq doxal nit bàyyil nu doxalal la ko te nga bañ a bind nit boo ko bindee xuloo dootul jeex boo ko bindee xare dootul jeex boo ko bindee wujje dootul jeex kon jarul bind yàlla ni leen li tax ma di ko def xamuleen ko man rek maa ko xam kon nag tàgguwuma leen yëgaluma leen wante lañu waxoon ci doomu aadama yépp ñoom malaaka yi am na moo tax kooka laaj moroom mi ni ko ndax booba la baaxoon mu ni ko boba kay baxul mu ni ko waw keroog bi ñuy doggali sunu mam adam da fekk xel des na ci mom te mu wax ni taxayarat bilad wa man alayha fa wajhul ardi muxbarun qabix bi sët yëg doom ji di jooy ni ko maam toog fi ba ca kanamati tuuti rekk mu ni leen suuf soppeeku na ñi ci dëkk soppeeku nuñ ñu ngi commencé di reyante waaw te itam rekk mel na ni nag kanamam leere woon bi may sog a wàcc poussière yàq na ko ba kenn xamatul lu moo niru kon nag ma dem rekk moo fi des mu ni ko ndax booba la àdduna baaxul mu ni déedéet booba kay baaxul مني كوكي ركبة أخو عاد واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ولكو بمو ديغلي غيرم غ pour ñu wattandiku ñaaw lammi te wattandi ko bon xol ñu tëj tëj ba yàlla alak leen moom mu mucc ba mu ñëwee fekk dëkk ba yépp dara taxawal ni ko ba mu waxee ni biladun biladun biha kunna wa kunna nuhibbuha إذا الأهل أهل والبلاد بلاد mu ne ko ba ñu alakee waaxaat te góor ga leen doon tere ñu bañ ko déglu mu dem bàyyi leen gannaaw ñu alak leen mu dellu si fekkatu fa lu taxaw amul ku mu waxal mu yëngal boppam ni ah réew la mu ma dëkkoon de te it bëggoon na waaye ba ma koy bëgg ak di fa nekk booba nit ñi nit lañu réew mii di réew la woon waaye bañ ca génnee yàlla def na la mu xam mu ni ko ndax booba la baaxoon mu ni ko déedéet booba kay baaxul mu ni ko waaw ba ba waxee ba muy wax ni ذهب الذين يطاف في أكنافهم وبقيت في خلف ولا في خلف بلا جناخ بالفتح أو بالسكون بلاد ذهب الذين يطاف في أكنافهم وبقيت في خلف فخلف من بعدهم خلف ونياه ñanéxon gan day ngi ci biir bàmmeel yi léegi ne ñu ngi ci biir bàmmeel yi léegi te ñi leen wuutu nag xamuñu nu nu leen di def ndax demuñu jamaat dikkuñu cëng mu ni ko ndax booba la baaxoon ni ko ah, booba kay baaxoon mu ni ko بالحروب الهاشمية ñëwee ndax booba la baaxoon mu ni ko booba kay baaxul mu ni ko waaw xam naa bu fekke woon tey dina ko laaj ndax première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale ndax boobu la baaxoon daf ko fekkewul rek ne kon mu wax ko wallaay pour won la ni àdduna ni mu mel rek la mel mosu ci jóg yow nag yaay am njàmbaaru xam li li fi indi waaw yaay am njàmbaaru xam li li fi indi daa dafa am jigéen bu ñuy wax Rabiatul Adawiya Sëriñ Babacar daan na ko faral di cité ndax jigéen ju xàmme la jigéen ju xàmme la nee na ñetti taxawaay rekk moo am bëgg àdduna bàyyi àllaaxira gi bàyyi yàlla toppatoo sa àdduna walla nga bëgg àdduna bëgg àllaaxira toppatoo sa aduna nak toppatoo sa alaxira nee na wala nga bañ àdduna bañ alaxira ngir bëgg yàlla mu man nag boobu laa taam te jigéen la nee na bëggul àdduna bëggul alaxira ndax alaxira aljanna rek a ca te nee aljanna yàlla la nopp na ko yàlla xool sunu boroom xool ko xam nga cir yooyu moo tax arab yi di léeb ni nit ñu ngi koy xàmmee ci tànnam am na ñoo xam ni bu ñu tànnee rekk nga xam ni dañu doyati am ñoo xam ne bu ñu tam tànnee rek nga xam ni jàmbaar li moo tax boo dee tànn ñett da ngaa seet seen rawaan bu seen rawaan amee yërmandi duggal bu seen rawaan ñàkkee yërmande boo dee tànn sëriñ seetal rawaanam bu rawaanam bonee rek waccal bu rawaanam amee yërmande rek àndal moom boo dee tànn jabar danga seet rawaanam bu rawaanam amee yërmande jàppal bu rawaanam bonee rek waccal boo dee tànn buur danga seet rawaan bu rawaanam baaxee tànnal bu rawaanam bonee waccal yont yàlla yuusufa dañu ko dugal ca teen ba sàmm ba ñëw di root gis ko génne ko di ko yóbbu pour jaay ko waaw kon dina ci am xaalis tabarkal waaw booba ndaw la te ñàkkul fayda ba yàlla dogalee boo demee ci université Bagdad parce na am face bu metti bu ci am ñuy wax ni la ko lekk ak bi bu la bilhamzati ñu ni déedéet ziibu la bil mu jural la ko werante ba Bagdad di bëgg a waaye gis nga borom jàng la la jaaxal daf ko yomb kenn ci professeur yi ni leen ak ziibu la ñuy wax waaye kenn du wax ziibu ñu ni ko lu tax mu ni istadaba ak istadaba moo tax te la ko xam boo ne istadaba bil hamz mooy mi ngi till tillulu boo amee hamza rek mi ngi till tillulu lay firi waaye boo nee nag istadaba amul hamza nee na mi ngi jeex ba dara desul ci moom moom lay doon wallahi eh, xam nga ak ziibu dafay firi gaynde waaye ci xam-xamu bayaan la génne xam nga góor gu mag am doomam bu mu bëgg nga bëgg ko wax ni ko sa doom bu góor bi nga bëgg gaynde lekk na ko bayaat nanguwu ko ndax lekku gaynde bu ko mag jeneeree rek xam ci doomam lekku gaynde bu ko mag jeneeree ci doomam ni gaynde yi def nit foog mu xam moo tax foofu bi bu ji firi euh, till ñu indi ko fa mu remplacer gaynde pour buñ ko nee till mu naan ah xëy na kon deyagul bopp bu fekkee till rek la yaakaar jooja rek a tax ñu indi ko waaw waaye bi mu nekkee ci kaso bi te sunu boroom gis ni doomu aadama yi soxla nañu ndimbal dafa ko jox xelu kenn ku nekk dina ñëw ci sa cellule nuyu la wax ak yow laaj la loo def lépp ñu di ko ko wax mu di ko enregistré moom yoon ci Yàlla Yuusuf comme ni avocat yi def comme ni juge yi def booba amul foofa ndax buur ba borom bakkan la woon bakkanam rek la xam ñanca kaso ba nañu dee ba dem alaxira yoonam nekku ci te yàlla itam nag fa mu lay walloo doo ko yëg mu indi leen yusuf ñoom waa kaso muy laajte kenn ku nekk lu la jot ñi feebar mu ñëw laaj ñi mu mën a jox garab mu jox ba coow li bari ci dëkk bi parce que ku génn ci kaso bi rek boo matalee ba génn daal di soppee ba sa famille du xam lu la soppi léegi yaa ngi am teggin yaa ngi nekk nit ni nga daan saaga bàyyi nga ko yi nga daan def bàyyi nga ko lool lan la ñu di ko joxante ba ñu ni gan la gu nekk ci prison bi mi ngi tudd Yusuf ba mu àgg ci nopp buur buur bi ni nañu ko indi dañu ko indi gaaw جئتوني به أستخلصه لنفسي واو فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين bu buur ba waxee لا rek la xam ni mu ne ko kay nekk sama conseiller personnel man rek ma jariñoo mu ni ko ci yow ci man ndax prestige du tabax njàmbaar mooy tabax mu ni ko kon loo bëgg mu ni ko bàyyi ma ma dem ci àll bi dem ci nit ñi bu ko defee bu fekkee alal la ngi ci réew mi xam naa na ma def ba ñu jëriñoo ko mu ni ko ndax inni xafidun alim ku sérieux la te man rek sañ wax ci biir jabar ndax kenn sérieux ni ko te ku compétent la te rekk ko sañ wax ci biir jamono ndax kenn amatul compétence mu ni ko inni xafidun alim buur ba bàyyi ko réew ma mu defar réew ma ba tax na soo nekkee ci àdduna dangay xam li la fi indi yàlla dafa dogal ko jàng bu nekk ci àdduna gannaaw bi yonent bi wàccee ci dëll yonent bi la jóge kenn yonent bi masul jàng bi ñu wàccee wax wi ci moom fekk na ñu defaral ko làmmiñam ba waxam mënatul niroog beneen wax loolu itam mel ni daf ko yàq ci waxante ba sawaratu di waxante ku nekk wante itam xam na ni du ndeyam a tax du baayam a tax yàlla daf ko yónni looloo tax kon nag fokk mu muñ itam nit ñi seen ñàkk élégance ci wax fokk mu muñ ko waaye fokkit mu saafara ko ci jàngal xam nga ni am na nit koo xam ni bu la xëysee bu waxee yow bu demee doo añ sa dund yëpp dafay tukki am ñoo xam ni buñ la xëysee bu ñu waxee yow ba dem naqar bu nekkoon ci yow dem loolu dañu koy jàng moo taxoon li gën a yéeme ci wàllu yonent bi mooy gaaw gi mu gaaw ci suqali nit ñi ci wax bu yàq te ni mu koy defe mooy dafay fekk ñi gëna a yaru làmmiñ gën a jekk waxin muy bare lu ma wax ak loola di xiir ñi ci des pour ñu dellu gannaaw ci waxin bu jekkul te booba ñaar ñoo ci ëppoon doole Ousmane ibnu Affan aristocrate la woon ci ndey aristocrate la woon ci baay ñu yar ko ci làmmiñ bu rafet yonent bi yàkkamtiwul lu dul mu ñëw ba mu waxtaan ak dafa bët Xudayfatu bnul Yamaan noonu la meloon yonent bi nee wóor na ko amewul nubuwa wante dina jot wax ndax ni muy waxe ku dul jot wax yu do ko man xudayfatu bnul jamaan moy parrain jeune musulman yi ca jamono muhammad ba ba adduna tukki nit la ku yéeme won nit ku yéeme woon la ali ibn abi talib tegal ko fa xikma xeetu méthode yi mu mën a jàngale wante wax bu bigal nit Ousmane ibn Affan daan ko di bi ba na kenn ci mag ñi ku ñëw ni gëfër ci kanamam wax waxin rek fekk mi ngi jóge ci Ousmane ak Hudayfa mu mel na ku jóge ci lem sex booba bu dal di ni bërëb jóg dal di ni archidu saaxiba waaw jàngal leen ko wax archidu saaxiba wax ko ñaari yoon jàngal leen loolu moo tax bi ñuy bind alquran yàlla ci dogalam fexe ba comité ba ñu chargé pour ñu dajale ay yàlla ci kattanam fexe ba Ousmane Ibn Affan nekk président comité ba ndax yàlla sax xam na ne Ousmane ku dégg wax ndegam yonent bi moo ko mën a xam ba sa yàlla te yàlla moom it dafa yiw waaw yàlla dogal bi xew-xewu xudaybiya amee Euh, yonent bi def doon dem màkka pour ji waaye aj gi ndeke yàlla rekk taxul dafa bëgg a wane doole mu dem tànn ñetti junni waxambaane kenn ku ci ne mën na ndékkee waxam ba mu ñëwee ba ca yoon ba màgget yu mënatul dara ñoo ko dogalee ni ko wàññeeku te bu ko attee xel rek yàlla alam ko waxambaane yépp ñu wër ko lu nuy nekk lu nuy nekk xanaa du bu ñu dee demal jenn mu ne xàkkee mu ne xanaa du ñu bu ñu dee dem sabar mu ne xàkkee mu ne lu ñuy nekk mu joxoy leen asama di leen fii xel du ko atte asamaa na koy atte yàlla ne ko dellu comme tere nañu la nga dugg màkk dellu ci la sulxul xuday bi yaame ba mu nangoo dellu ga nag ci la yàlla sogal nangu valeur mu di koy wàcceel inna fatahnaa laka fathan mubiina waaw ñu baree ngi defe ni ci fathu Makka la leen déedéet waaw bi ci fathu Makka ci sulhul Hudaybiyya yàlla ni ko ubbil naa la ñeenti robinet koo ci yéene na ci naan robinet bi dëkk bi mooy loo masa def ci sa dund ba fii nga toll bu niroo safaan bal naan li nga nar def luy niru safaan fii ba ba nga may wëy baal naa la robinet boobu itam koo ci nandal yàq ma ko bokk ci li yaxbira laka allah ما تقدم من ذنبك وما تأخر وا ونكون مثل نايت سما خيول تيو يالا مثل خيول يب تيو ناخ نيت ني يوننت يتي اكو فالور تا يالا دون تا بنن يوننت دوا ويهديك صراطا مستقيما jox na la constitution bu beneen constitution dul mën a tegu ci kaw te moo di ashariatu lmuhammadiyi wa yansuraka allahu nasran azima mu ni ko tey jox na li victoire bu mu dul joxeeti mooy seen nit ñi ki ci gën a tuuti dana fexe ba xaalis du ko jënd njaasi du ko dàq moom it ma ngaa ubbi ci ñeenti bu jëkk